une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer mbooloo kilifa yi nga xam ne teewoon ci jotaay xam naa dañu njëkkante rek waxtu yi dugg ci jogante bu mujj bi nga xam ne moo jëm ci musaajala xasaayid xaadimiya muy jogante boo dañ koy jëmee ci xasida Sëriñ Tuubaa sant mbokk yi nga xam ne ñoo jiitu mu ñu yoroon lu jëm ci alxuraan bi ak lu jëm ci culture xam naa jongante bi ñu ko war a ànd muy lajnatu kim bi mooy ñuy àtte danañ ci ànd ak sëriñ maam si Ibrahima mu sëriñ Muntaxa ak sëriñ Muntaxa Seck ak sëriñ Fàllu mu sëriñ Basiiru mu sëriñ Fàllu ak sëriñ Sawru Kebe su ko defee nag dañuy leeral wax ne ñeent ñi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi war a jongante day mel ne bi ñu defee jongante yu njëkk ya ñoom ñooy ñi si noonu ñu war a dajee finaal ñoom ñeent nag laaj yi nam daan demee rek noonu lay demee su ko defee dañ leen may ci wërngër bu njëkk bi luy tolloog cinq minutes bu jàllee bi ci tegee luy tolloog quatre minutes bu jàllee bi ci tegee luy tolloog trois minutes beneen bi ci des muy deux minutes su ko defee mu daal di jeex su ko defee kuñ laaj booy wax luy tolloo fukki fukki seconde rek ak juróom moom lañ lay may bu xasee ba jeex saye kon loolu ñu xamee ko noonu xasaayit yi tamit ci xasida Sëñ Tuubaa rek la ñuy soxlawoo ku dugal geneen xasida bu bokkut ak xasida Sëñ kooku moom duñ ko nangu même yi nga xam ne moom lañ tuddee ay manzumaat ilmiya yooyu duñ ko jàppee ay xasaay lu mel ne ay tasawdu sixaar tasawdu subaan ak ay mbokkam kon yooyu bokku ci léegi kon di secondes lañ mujj dëppoo aywa su ko defee nag bu ñu xasee ba tàmbali ci jawlu bu njëkk bi bayit buñ xas ba wax kenn du ko waxaat kon xam naa ñu tàmbali ci sëriñ Ceerno Buso rabaxiya fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli sahrin zeydu rebxi fi safar ra rasulun karimun la yubaha mukarramu bashirun nadirun minhu binnafi wa durri waxal ci kaw ngir mu leer rasulun karimun la yubaha mukarramu bashirun nadirun minhu binnafi wa durri sëriñ murtada mbaw ra rumna shukur alladi bilkaafi wan nuuni ma shaa yafalu min baadin wa maknuni sëriñ muhammadu mbay noonu taal ko waxaat rek ba xam نعم العظيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء حمزة سرين باكر نبوسو أنت الكريم أ nal xadiimu dëhran udiimu sëriñ Cerno Buso ka sanaa'i hamza ila salaami ufdi kalaami bila malaami wala qilaay sëriñ Murtada Mbaw hamza inni bi madxi aayantu ribxi qatan wa nujuxi maa albinaay sëriñ Muhammadu Mbay hamza aahin ala faqdi saadatin tariqatuhum tariqatu almustafa xayri albariyaati bàyyi Cerno Buso taar tursi anil akdaari wal mafasidi salamati min jalibin li fasidi masha allah Sëriñ Cerno Buso daal daawtu ilahi wa huwa mugnin li mubtadi wa saaqa li gayri bin nabi kulla mu'tadi Sëriñ Murtada Mbaw دعاء دعاء استجاب الله بشرا لمهتدي وأبدي لوجه الله حقا لمقتدي سرين محمد مباي دال دعاني الرحيم عند داومي له بما أغنى عن التساوم باي كيرنا بوسو ميم محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي سرين كيرنا بوسو دوت ضفت الكريم الذي يقري بكن أبدا وأن أعاون في طوباي قد أنا سرين مرتضى مباو نون نعوذ بالله في سر وفي علن من شر إبليس حيث قد أو ركض بامواتن بيبي نعوذ بالله في سر وفي علن من شر إبليس حيث قد أو ركض سرين محمد مباي ضاد dayfun daifun yartaji bihimul xira mimman yukarrimu man yasha wa yubajjilu masha allah sëriñ Cerno Buso laam lillahi kulliyati abdan lahu abada wala utaawiu man qad jaara aw rakada sëriñ Cerno Buso daat diftu lkarima alladi fi lbarri karramani wal bahri id saaqali bil faydi qur'ana sëriñ mortada mbaw noonu najji iyaal mustafa baada salah maa salaamin min idaahumul qula raa ah? aywa sëriñ mouhamadou mbay هباط من لي كان عند الواسعات قادت لكلكل الرضا والساطعات سرين باكر نبوسو تا ترسي عن اللعين والفجار kawnul badi il alami najari masha allah Serigne Thierno Bousso raa rabbi bima yashrahu al adhana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa Serigne Mourtada Mbaw Hamza adu ilahi alladi ammat mawahibuhu li jumlati alxalqi ma yaxtaaru man baraa Serigne Mouhamadou Mbaye Hamza inna alladina saaricu lilxidma wa lahum ddiyaaru wasta aljanna sëriñ Baay Cerno Buso ha huwa alxafiizu alladi qad kaana li wa xama kulli wa ashaba an lil karba wal marado sëriñ Cerno Buso noonu wala doot doot doot diyaafatul baaqi la dal jinaani tamxu ana asawmi bimtinaani sëriñ Murtada Mbaw noonu najjayta man bi yataallaqu maa min alchayatini fa chukur yasmaa sëriñ Mouhamadou Mbay miim ayn ayn aywa ismaa ala alladi madaxtu min rasi alxurum bi saadisi alchuhuri wa huwa man karum sëriñ Bàcceerno miim miim miim malaktu bi rabbi muxjilal mawji wal yammi bi madxi lazi ansa azal fulki kal xammi sëriñ Cerno Buso miim maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayabatun faltaqra an suurata najmi sëriñ Murtada Mbaw miim minallaahi rabbi nnaasi arju saadatan mhm. wa an yaqbala al amaala wallaahu raafiu sëriñ Muhammadu Mbay ayn abdan lahu wa yasuuxu li ma ashtahi wa alayhi jalla jalaaluhu atawakkalu sëriñ Baay Cerno Buso la lam lam yanquni dararu naari dunya waxta sanil baaqi bi xayri sunya allahu akbar sëriñ Cerno Buso yaa yaa dal bishaaraati bil ayaati wa suwari lishhad bi kawni yaa abdal muhsini suwari sëriñ Murtada Mbaw raa radda makaarihi li gayri llaahu qataan wa laa ilaaha illa llaah kon day mel ne xatam bi nee nañ jawla bu njëkk bi jeex na xam naa wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñu déglu ba xam lan la xatam bi gis ci mbokk yi ku ci war a toog ak ñi ci war a des salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi ziyaara euh, di am ci lool ci ni jogante bi di demee ñëpp ay jàmbaar lañ lool waaye nag faw rek ñuy wàcc benn benn ba keroog ki jël raw kàddu gi jël ñaari yàq lañu nemmeeku ci ñu fi jaar ñëpp euh, benn bi mooy kawnul badiil aalamiina jaari kawnul badiil aalamiina jaari kawnu mudaaf la ci badia alif ak lam gi bokk ci kon loolu ab yàq la euh, beneen yàq bi inna alladina saariu am ñuy bind saaraaw saaraaw moo wér ki jàng dafa jàng saariu te mooy sëriñ Muhammad Mbay waaye moo gën a woyof yàqub sëriñ Baay Cerno Buso bi mu wax kawnul badiil aalamiina kon dañuy jéggulu ñaanal sëriñ Baye Thierno Bousso tawfiix ak taysiir incha allahu ni muy waxee ab yat na kenn waxewu ko noonu wax dëgg yàlla dafa mel ne ab shaa'ir la mel na ne ku xam arut la it ci ni muy waxee bayt yi ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax aywa kon ñu continuer ci liggéey bi di sant bu baax bàyyi Thierno bu sa dëgg yàlla jàmbaar la ni ko Serigne Fallou waxee jàngin wi ku ko dégg xam ne ni mu ko doon tàqati am na solo lool mel na ne yekku na arut su ko defee ñuy sàkku ci mbokk yi bay di ñu koy wax mu leer ndax buñ la ko wax loo waatee rek day mel ne kon ñàkk dégg li nga wax mooy li ko waral ngeen di wax koro bi mu leer ñu tàmbaliwaat ci Serigne Thierno Bousso euh, kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamu fiddatin wala jamu sahab baax bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu laa bi dahabi mawruuthi euh, Serigne Mourtada Baw cuun summa li daarihim sana waqad xawaa kulla munaa minhu wa adhaba alana wa jalibaati niqam sëriñ Mouhamadou Mbaye man ammani min alida bi gadri fa huwa mubarizul li ahli badri sëriñ Ceerno bu Sara rabaaxiya madxul lilladi madxu mugnamu wa inni ila al sëriñ Murtada Ndaw miin sëriñ Mouhamadou Mbaye miin من لبت أفضل البشر ما لا يزال من بشر ويمنه لي نشر وقادني بالكامل سرين أبو سرور مدينة عدن مرتدى منة لنا دريء ومهد من ذنوب ومن ظلم سرين مرتدى ميم Serigne Thierno Moussa صلاة الحجة له علي صلوات الحجة نور عظيم قد يرى به قصور قيصر من كان من القرى مكة خير القرون. نعم Serigne Mouhamadou Mbaye daal دفعي وجلبي ختمة الهادي الأمين مع الأمين والأمين لا أمين سرين تيرنا بوسو نون نبضت الفرا لله جل جلاله بمدح الذي أمداحه زهزحت حزنا سرين مرتضى مباو نون نويت بمدحي من أتاني نواله وإني بما الاختير قطعا عياله أه سرين محمد مباي ها hadayta kulliya bi tawfiqika ya alimu ya xabiru zala shakkiya masha allah kon day mel ne jawlab ñaareel bi muy wërngal bu ñaareel bi jeex na dañuy déglu xakam bi muy ñiy àtte su ko defee luñ gis rek ñu gaaral ko mbokk yi ba xam suñ ñetti mbokk yi kan moo ci war a toog ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñu ngi leen di ndokkeel bu baax Euh, kan moo waxati woon bayit bi ci ñetti mbokk yi rabaaxi matxun lilladil matxu rabaaxi matxun lilladil matxu kan moo ko waxoon lañ wax rek wala rabaaxi ah? mhm. waxaat ko waxaat ko waaw ah. rabaaxiya madxul lilladil madxu munamu wa inni ilal jannaati bil bishri munamu mhm. baax na waaw rabaaxiya madxul lilladil madxu mugnamu waaw kon mbokk yi euh, ñu xam ne rek ñun ñi nga xam ne it ñoo toog fii di jéem a atte dañuy jéemant waaye kenn matul al kamaalu lillah bu ci amee ay njumte ñu jégal ñu ko waaye du suñu coobare euh, rabaaxiya madxun lilladi l madxu magnamu sëñ bi dafa jàng mugnamu léegi nee na téere yim jàng loolu lañ bind waaye nañ xam ne ñi jàng ñiy bind xasaayid ñu ay marjaan dañuy yàq xasaayid yi loolu moo waral xëy na sax du ñàkk ci baaxoog Sëriñ Muntaxa ak yitteem jure ji mu def ci jàng ak jàngale ñi ngi mbébét ne dana takwin laj na boo xam ne yitteem mooy ku bindati xasaayid wala xasida bala mu ko móol ñu yóbbu ko foofa ñu tasfix ko la nañu tampon boo xam ne day wane ne lii lu wér këng la ñu doog a ñu doog koo mën a móol ku ko deful ñu teg la ay daan loolu lu war a am la ndax dana tax mbindum sëriñ bi ñoŋ sama classe gi mokkal nañ xasaayid yu bari ci ay yàq te nañ ko bindee moo tax wala sax ñu dégg ko kaw jàng mokkale ko noona fekk ab yàq la kon ñoo ngi jégalu bu baax a baax sëriñ Thierno Bousso moom moo jàng loolu kon xëy na moom rek lañ nemmee ko ci moom ab yàq ci yoon wi ñu ko ñaan yàlla tawfiq ak tey taysir di ko jox dig ndaje incha allah ba beneen yoon Euh, sëñ bi daa mel na ci xoqal bu kaa am na bayit boo waxoon baamtuwaat ko ah euh, raabu xam ma abki alayhim abki alayhim la ca tege nag wax dëgg yàlla su ma ko jàngee day xaw a dama lay jàppale moo tax abki alayhim wa arju fil bukaa jàng woon boobu de mm, mm, mm, naa ko fihi xaabu waaw waxaat ko abki alayhim wa arju fil bukaa gadan ridwaana man fiihi gaabu bil xalaawaati ridwaanu nga njëkkoon a jàng ridwaanu da nga koo damm woon ridwaana bi ko jàngaatee ci nga ko wax kon kooku njuumte la ba tey noté waale leen ko déedéet bi ñu bàyyi mu jaar déedéet kooku njuumte la sëñ bi salaamaaleykum kon kon day mel ne dañoo nemmeeku ci ñaar ñi kenn ku ne ab yàq léegi dañoo bëggoon ut solution mooy ñoom ñaar lañuy ñuy boole ci benn tour boo xam ne dañ ci xool ñoom ñaar ku ci génn ku ci génn dajeeg eh, sëñ bi nga xam ne moom dem na final pare. léegi loolu dañ ko def ngir ngir solution sëñ bi ak sëñ bi ku ci génn dem ak sëñ bee final une minute boo xam ne yàq ak dam ak lépp lañ ci bàyyi xel baaxul. kon Serigne Thierno bismillah asiru ma al abrari xiina asiru wa dhanna al ida ani hunaka asiru ra rabbi bima yashrahul rabbi bima yashrahul adhana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa Serigne Mouhamadou Mbaye Hamza الله جل أحد الله الصمد الذي بدت علاه Serigne Thierno Bousso ha hadiyatullahi almuin saaqat li gayri yallain wal yawma billahu yuin man shaahu wa fi gadi Serigne Mouhamadou Mbaye daal dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadin lissamadi Serigne Thierno Bousso daal دعوتك اليوم في الأيام مرتديا ثواب من حج بيت الرازق الله سرين Mouhamadou Mbaye hadama rabbiya bina durri wa nicma rabbuna wa minhu zaada qurbana qurba ridan wa karami aywa kon day mel ne jawla boobu jeex na ndax na teqale nee na nga baamtuwaat bayit bi tàmbale woon allahu allahu jalla ahadun allahu assamadu nilladi badat ulaahu assamadu waaw déedéet laaj ñu xasida gim baax na la ñu bokk teewlu mbokk yi ñu gën a teewlu allahu jalla ahadun allahu assamadun illadi loolu la sëriñ muhammad nday jàng assamadu dafa mel ni nillazi boo ko jàng kon baat bi ko jut dafa a nekk tanwin ñaari maska moo fa a nekk bu fekkoon samadun te jàng samadu bu fekkee assamadu nag moom la kon du sañ a wax nil lazi mel na ne kon loolu ab yàq la sëriñ Mouhamad Mbay kon moom la ñuy ñaanal yàlla tawfiq mu des sëriñ Thierno Bousso ak sëriñ Murtada Mbaw incha allah ñu dem final jërëjëf sëriñ Mouhamadul Fadil ñu ngi leen di sant bu baax di sant Serigne Mouhamadou mbay ak ñi jotoon na jàll ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ su ko defee nag ñu ñëw ci final bi war a dox ci diggante sëriñ Mouhamadou Mbaw sëriñ Mourtada Mbaw Mbaw ak Serigne Thierno Bousso insha allahu taala xam naa kon dañuy barkeeluwaat rek bayit biñ tijjee woon ngir màggal gi tijjeewaat ko rek rabaaxiya fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli shahrin zaydu ribxi wa fi safar ra radda makaarihi li xayri llaahu qataan wa laa ilaha illa llaahu sëriñ cerno ha hibaatuka li ayat shukuriya fil kunhi laka alhamdu yaa fardan taalayta an shibhi sëriñ murtada ha hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi iyaali bi dikri ma salaati wa bil madhi sëriñ Cerno Buso ha hadama rabbiya bina durri wa ni'ma rabbuna wa minhu zaada qurbana qurba ridaw wa karami sëriñ Murtada Mbaw miim man lam yakun anniya yarda fal karim radiya anniya ridan laysa yarim sëriñ Cerno Buso miim maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayabatun fal taqra an suuratan najmi sëriñ Murtada Mbaw miim minhu ishtara allahu ka xaytu ntaxat abadan kama lahu qaada maa yahwaahu awtaara sëriñ Ceerno Buso noonu hmm? raa aywa awtaara rasulun karimun laa yubaaha mukarramu bashirun nadiru minhu bin naqi wa durri Serigne Mortada Mbaw Ra rajawtu adaafa ma qad saaqahu harimun ila zuhairin fa ahdi laysa muntaqido sëriñ Cerno Buso daal bo hmm? bo muntaqido la daat aywa daat diftu alkarim alladi yuqri bikum abadan wa an uaawana fi tuuba yaqad ana sëriñ Murtada noon nicma rijalu lahum majaalu niilu wanaalu waqtal anaayi sëriñ Cerno Hamza antal karimu anal xadiimu dëhran udiimu fii ka sanaayi sëriñ Murtada Hamza inni aqulu wala yamiilu lii ma yasuulu ma al jiraayi sëriñ Cerno Hamza inni bi madxi aayantu rebxi qat'an wa nujxi ma al binaayi adhabta hamza ba tey adhabta faqri lii sunta sirri min gayri makri wala hijaay Euh, Hamza ba tey it sëñ Thierno Hamza mhm. utni ala man bi fatxil xaybi yuftiini wa artaji minhu bushra suurati tiini euh, Serigne Mourtada noonu naajaytuhu biya nasiru yaa wali kafaytani iblisa inda jeewali Serigne Thierno laam laam laam lillahi kulli ladaa abaari makrumatin min hërtaxal naa wa fiiha jamma man zaara sëriñ Murtada raa raamu masiri ila jurbel la daa lasasin law aayanu sirama fi sayri maa raamu sëñ Ceerno miim madinatu ilmin murtajam minnatul lana jariun wa munjim min dunubi wa min zulmi aywa kon day mel ne jawla boobu jeex na ñu déglu xakam bi ba xam am na luñ joto seetlu wala sëriñ Murtada jàngaatal inni aqulu inni aqulu wala yamiilu lii may yasuulu ma aljiraai waaw xam naa bu dee lu mel ne raamu masir yi xam nga yooyu day mel ne bari na ay benn bennaan yoo xam ne wala ay ñaar-ñaar yu ñuy gis sëriñ bi di indi wax dëgg yàlla nag diwaan yi nga xam ne moom lañ xam mu nekk daaray kaamil bari na ci lool yu mel noonu te gisuñu ko ci waaye nag mëneef na ko jàppee bu doonee benn baytu yatim wala mufrad ba keroog ñuy xam nekk kon dañ ko jàppee mu doon xasida ci xasida Sëriñ Tuubaa yi rek waaw xasida la ndax bayt mufrad wala yatim dafa am ci arut buñ sukkandikoo foofu du du xasida sax bayt yatim wala mufrad lees koy dee ndax xasida moom ni ngeen ko xamee juróom-ñaari way jëm jëm kaw la waaye nag baytu mufrad am na yatim am na nutfa am na xitan am na ni ngeen ko xamee ci kon dañ koy jàppee xasida bu ko defee maanaam bayit yi nga xam ne moom lañ bañ mu ñëw mooy bayit yi nga xam ne dafa nekk ci téere xam-xam yi ñuy jàng waaye weneen bayit yoo xam ne ci xasida la wala suñ bi da ko wax noonu moom képp wala ñaari bayit wala xasida foo ko mën di jëlee rek baax na nay waxi sëñ bi liñ bañ mooy nga indi bayit woo xam ne ci tiire xam-xam yi comme lu mel ne tasawudu sixaar ak jawhar xel mi noonu kon raamu masiri dañ koy boole ci bayit rek nekkoon ci ñun ñi nga xam ne ñëwee liggéey bi nangu nañ njumte loolu ñoo ngi koy jégg lu baax baax kon dañuy demaat ak ñoom ñaar lu mat benn minute incha allahu ñu xool euh, fan la ndam li féete kon li wér mooy li sëriñ Murtada jàng inni aqulu wala yamiilu lii man yasuulu ma al jiraayi asalaamaaleykum ñu ngi sàkku ci mbooloo mi ñu ñu déglu ngir ñu mën a eggale yëf yi rek di xam ne loolu njuumte la loo xam ne dafa bàyyi koo ci ñun ñi àtte nangu noonu ko léegi dañuy continuer tañ bañ fay nekk di commentaire rek bismillah kon dañuy tàmbaliwaat ci sëriñ Mourtada Mbaw darajati taalu walaysatan xafit wa man naha min alwara xaf di xufit dot ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه ولا تردنه يا مذهب الخلل سرين كيرنو دال دال دال لام لام أيوه لم ينحني لم ينحني مبارز وفيض ربي بارز إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد دال سرين مرتضى duaa istajaaba allahu bichran li muhtadi wa ubdi li wajhillahi xaqan li muqtadi euh, Sëriñ Ceerno daal daani ila daawtu ilahi wa huwa mugnin li mujtadi wa saaqa li gayri binnabi kulla mu'tadi Sëriñ Murtada daal daani ila madxi lmuqafa muhammadi itaatu rabbin muusilim bi dawi rushdi euh, Sëriñ Ceerno daal dami wa ahli wa awlaadil fidaa ulahu abdan xadiman lahu mud kaana li sanada sëriñ Murtada daal darajati taalu wa taysa wa laysa tanxafid wa man naha min al wara mhm, naa ko waxoon naa ko wax naa ko wax man naa demal demal darajati taalu demal demal maa ko waxoon demal Ah waxu ko woon demal yow waxoo ko woon demal demal ma àggale ko waa demal waaw àggaleel waaw darajati taalu wa laysa tanxafit wa man naxaa min al wara qasdin xufit wa laysa tanxafit wa laysa tanxafit diftul karim alladi yuqri bikun abadan wa an uawana fi tuuba yaqat ana baax na kon day mel ne euh, ñu déglu xakam bi ba xam kon mbokk yi ñu ñëwaat ñoo déggandoo li fi jaaraat bàyyi ko ci ñaari sang yu tedd yooyu liñ ci mujj a nemmeeku ci luy nuru ab yàq mooy darajati taalu wa laysa tanxafit wa man naxa min al wara xafdi sëñ bi dafa jàng xas di sëriñ bi dafa bind xaf di xufit kon loolu ab yàq bu fees la bàyyi ko ci sëriñ Murtada Mbay kon sëriñ Murtada Mbaw day ne final bi kon foofu la yem ñu leen bokk ñaanal leen yàlla def leen dafa leen tawfiq ak taysiir kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mbàkke Jóob ok jërëjëf ñu ngi sant ñi participé woon ci musaabaxa yi di sant tamit mbokk yi nga xam ne ñoo demoon ci final bi muy Serigne Mourtada Mbaw ak Serigne bu Bousso wax dëgg yàlla ñëpp jàmbaar lañ xëy na léeg-léeg jafe-jafe yi mooy dañuy jàngee ab bayit ni ñu ko war a jàngee wala li daloon sëñ Bale dal ñu bëree bari mooy léeg-léeg niñ gisee bayit bi ñëwee ci xasida rek ñu maasee ko noonu noonu lañ koy jàngee te léeg-léeg nag wax dëgg yàlla xasida yi. danañ ci maas loo xam ne maas kaga njuumte lay doon njuumte nag kenn du ci topp bindkat dañuy xool li wér rek ñu jàpp ne loolu mooy li wér liñ war a jàpp kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax ba baax ñuy sant xakam bi ñu àndaloon di sant sëriñ maam Cheikh Ibrahima mu sëriñ Montaxa ak sëriñ Montaxa Seck di sant tamit sëriñ fàllu mu sëriñ Basiru mu sëriñ Fallou ak sëriñ Sawru Kebe lépp loo xamante ni xëy na ak gàttañ la wala njuumte la ci ñun ñu jéggal ñu alkamalul mutlaq lillahi taala yàlla rek mooy ki mat doomu aadama juum ñoo ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer